أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص الحمد لله سادتنا الأجلاء أيها المشاهدون الكرام فها نحن معكم في تلفزة الميمونة شبيبة تي في نسلم جميع أفراد الأمة جميع أفراد العالم قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتنا الأجلاء أيها المستمعون الكرام نحن معكم بقصة سيدنا يوسف Siddiq alayhi salaam ñu ngi nuyu sëriñ Abdul Fattah Sall doomu sëriñ Abbas Sall bu baax a baax di nuyu tamit suñu mag sëriñ Juga Mbeng xam ni ci loxoom ci lañ ak see fii mbokkiñ mbokk yàlla dina ànd ak yéen ci jaar-jaari Seydina suuf seen mbokk maam Bokar Cissé yàlla tab ko lu bari kon ñu dem ci kii bu njëkk bi xalqa bu njëkk bi waaw année mille mille cent soixante dëkk boobu mooy Faddaan côté féetew ci côté Babil muy dëkk boo xamee ni euh, euh, Faddaan Ram la tudd féete ca sowu dëkk bu ñu wax Babil ma ngoog e, ca wàllu côté Égypte muy dëkk boo xamee ni ca njëkk ca cosaan lañu xamoon mooy sàmm moo nekkoon seen ressource ci wàllu économie waaye it suñu wàllu pas-pas ñu ëpp ci ñoom dañ doon jaamu ay xërëm nga xam ni am na benn maabat seen benn jaamukaay yàlla seen benn jaamukaay ñuy jaamoo seen borom seen yàlla ñu koy wax euh, maabadu astar kooku ngeen di gis mooy Seydina yaqub mooy bàyyi yusuf mi nga xamee nii moom la ñu fas yéene nettali ay jaar-jaaram ñooñu ngeen gis ñu dem ndeysaan ay xorobin la ñuy yóbbu xorobin nag mooy alal ji ngay jël moo xam ci ak dund wala ak lekk wala ak naan wala ay jur nga yóbbul ko xërëm yi ndax am na ku fa nekk ñu koy wax istër mooy moo yor mbirum jaamu xërëm yi di ngeen ko gis ci kanam incha allahu taala waaye Seydina gaa yeeg noonu gis ngeen ñu dugg Seydina Yaquba ngi noonu waaw ànd ak doomi ndeysaan nekk sàmmkat c'est un berger waaye bu ngeen gisee fii rek mu yëngal na booba ndeysaan waaw xam ni ñi day réer ak ñàkk xam moo leen yaa astaaru kabira soxna si ayatuha al alihatu al um ayatuha al xanuun wa naqiya yàlla lay ji yaa alihata al xisni wal wilada adxil surura ila qalbi hadihi al um alqaliqa washfi walada wa fi al muqabil mi ngi lay ñaan yaay ju jaaxle gi nga fajal ko doomam ji man lay fasante kóllëre sa yàlla sa sa jaamukaay bi danañ ci def ay àddiye jox la li ci war lépp ba ca gën sax la ñuy tànn jox la ko ndeysaan ko koy istir mooy laaj naa asaan mu mag mi pour mu aar sa doom ji léegi nag li nga war a joxe na ko joxe li nga war a joxe nag dem leen min muridi Ashtaara wa atbaaha fu ngeen nekk de bàyyi seen doom yi topp leen Ashtaar te topp ndigal maa ngi lay ñaanal ñaanal Ashtaar yàlla na aar sama doom ji maa ngi lay sant gën gi sax sama doom ji doon na waaj a dee waaye ñaanal nga ko ndeysaan ndeysaan ma ngay bàkk Ashtaar na la Ashtaarul Kabira Ashtaarul Kabira. Ndeysaan est-ce que Ashtaar ko faj. loolu dina leer. laa rayba anna waladanaa sayushfaa wa yu'aafaa misla haazaa al-walad. si sàkk amul ni suñu doom dina wér de. waaw Ansar yàlla ñu mag la ci ci man la lu muy def ca ñeewante na. nañ dem suñuy ñaan ci la ko defee ñoom nañ dem. da leen dal yéen sa moom it yàqu mooy waaraate. yéen a ngi bàyyi ko ci yonente ba nga xamee ni. yàlla malaaka yi sujjataloon nañ yéen di suufeel seen bopp ci kanam aw xeer ñëpp leen war a topp yéen aw ay caaxaan nga fi indi ngay dal ci suñu kaw yàlla yi ngir man waxuma lu jóge sama bopp de man ndaw loolu yàlla yebal ci yéen indi leen ab téere lii mooy suxbu Ibrahima téeram bàyyi ko asamaan suñu maam Ibrahima moo ko yoroon man ca diinam jooju la nekk dama leen di jottali kàddu gi yàlla gi di leen xamal diine waxuma lu jóge sama bopp waaye est-ce que loolu nga yor téere ba war naa tax ngay dal suñ kaw yàlla yi téere man damay laaj rek antu leen ma bu ngeen bu ngeen xamee dara. bu ngeen réeree ca xamu leen lu dul lool loolu moo tax ngeen lu leen teree toroxlu dëgg est-ce que astaar moo leen liggéey wala yéenay liggéey ndaxte moo leen di saytu wala yéenay war a saytu ndax moo leen di digal wala yéenay war a digal wa astaar nekkoon aw xeer puskare ñeel na kon du mën a faj sunu yàlla yi ah kay fay na sunu yàlla man maa gis mu faj ko baraka ci barke ba Absaar ci la ci lañ fajoo ki faj daal mooy ki xam lépp te dara kumbu waaye du Absaar de yow soo wéeru ku dul yàlla wala ngay sàkku ci keneen dimbal ku dul moom moom moo xam lépp moo xam mbiri jaam yi moo la dottil xéewal ak yërmaande. am nga bët yuy gis yàlla jooju xërëm jooju waaye sa gis-gisu biir gisul kii faj dëgg wa taabudu ilaahahu huwa est-ce que sa waarati wax naa tax nga dem ci kaw yàlla yi nga jàpp ñu jeneen yàlla jurul yàlla ñun gisuñu lu gën astaar mi de yow bu dee mën nga ñoo jëriñ ko wax man ci yàlla ji kenn waane lana an naarifa anna ilahaka xayrun min saa'iri al nan la ñuy xamee ne sa yàlla ji moo gën ci sunu yàlla yi lan moo ñu xamal ni sa yàlla ji moo gën yàlla Ashtar yàlla nga xam ni dajale alal ak yëpp ron la ñuy def waajaa ngay daw na waa ji ancien secret la gis ngeen ko mu rocceeku ndax gis ngeen ma laaj leen alal man comme ni ko ñëri defee wala mu sàkku leneen lu dul sama càmm loo ñuy proposé ko yow amoo benn doole amoo benn kàttan yéen ñëpp a yem yéen ñëpp a yem kañ ngeen leen di féetale li nga xamee ne mooy atte gi muy doole ji muy état ba pare ngeen di lekk alal ba seen biir fees ñàkk sa doom ja. waaw xamoo ku koy faj moo tax nga jaaxle waaye est-ce que njabarkat astar du astar njabarkat bi du astar la sha'na li bi ashtar al ilahati al ajiza man soxloo ma astar soxloo ma ci kenn man kay damay laajte yàlla jooju lan la man ban compétence la man te ñu mënuñoo sàkku benn ah ñay garde ah, église ba nag ñëw nañ dawal gaaw bala ñu laa jàpp dawal mbokk yi kooku tontu cey daw mooy kooku ñu tuddee euh, faris daw leen jàpp ko yam leen jàpp ko bu leen ko bàyyi mu daw mu rëcc bàyyi leen ko bu leen ko lool waay sama jëkkër ji lawla annaka sihru laban al-hakim la araftu kayfa u'addibu bu dul woon boorul woon jarbaatu sa laabaan euh, danaa def ci yow yow faalewu ma la yow yow ñu yàgg say gardien jóge leen fii li ngeen déglu ci waay waxi dofam yi doy na dem leen tàqali ko xanaa xamu leen ni moom waxam ji moo tax bekkoor bi bari fi wax na dëgg de dem leen seen yoon bu leen ko déglu bañ leen jóge leen fi gaaw bala ñoo yàlla jéemere yàlla lay église bee mere ndeysaan awla jaahiluun mbokk yi gis nga Yaaqub doon na def discours doon leen waar waaye gis nga ñi la tamit ñëw nañ daal di yàq mbir ma nag ñii nag ñoom ñaar ñëpp ay doomam lañ ay soxna magoog ñoom ñaar ñëpp ay soxnaam lañ ndeysaan doom yaa ngi noonu dana def buy waaraate rek yóbbaale doom yi yóbbaale soxna yi ndax loolu mooy liggéey bi nga xam ni moo war a am ndax ëllëg kat boo demee ba dëddu wane ginnaaw li nga doon liggéeyal yàlla subhaanahu wa taala eh, yàlla nag daal la koy say boo fi jógee rek say doom donn ko ndeysaan eh, xam ngeen ni kon eh, waa jooju ñu koy wax Faris jàpp nañ ko te ñoom seeni luwa mooy képp kuy diingat seen yàlla yi ak seen xërëm yi buñ la jàppee dañ lay taal ah, asamaan si day